Euh, Amérique dafa am euh, dîner de gala bu mag bu fa am ak fashion show boo xam ni waa CSD euh, ñoom ñoo koy organiser CSD ñoo jël tailleur styliste yi nga xam ni ñoo ne ci réew mi bokk na ci Bara Couture bokk na ci Bamba Partner bokk na ci Bouti Limite ak yeneen i tailleur yoo xam ni ci biir Sénégal la ñu nekk waaye ak yeneen i ndaanaan yoo xam ni ñu nga Amérique ak Gambia ànd ak ay ndaanaan yu toll nii ki nga xam ni mooy Salam Diallo bokk na ci Daba Sey bokk na ci Mary Ndiaye ak waa Seng Seng Tarkal géwél Bay ñu fay wajal euh, ay ñaari bis yu doy war ñaari bis yu mag ci New York City donc ñu ngi ci wo ñëpp rek kep kuy doomu Sénégal kuy doomu Gambie wala doomu Amérique ñu ngi la ci wo wax naa ni septembre 23 euh, ak septembre 24 ah, ñu ngi wo ñëpp rek ngeen ñu fekk suñu ci man aba ma ngi ci biir ah, mama Gassama ma ngi lay kontaane bu baax mama Gassama donc di ci wo wa sen di ci wo kep kuy Sénégambien wala ngay africain ñu ngi la ci wo bu baaxa a baax a baax na ko ñëpp waajal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 A ah, ki froid 2000 ku ko gisul sunu ci li nga climatisation installation la maintenance réparation remplacement wala électricité bepp njàqare bu am ci sen wala ci kay froid 2000 moma ci doy mun nga au 77 554 54 49 Zoom mobile fu ngeen ñu soxla climatisation mon installation la maintenance wala dépannage amul benn marque bu ñu ci Vous bu leen nangooti de confier n'importe qui un climatiseur nous sommes une équipe d'experts jeunes motivés et très dynamiques. 3 2000 téléphone 77 554 54 49 nous sommes à la cité Djily Dakar vous pouvez également nous suivre dans nos différentes plateformes digitales الوديده